asalaamaaleykum wa rahmatulah di am mbégte nag a ak contentement bu yaatu ci ñëw teeru président Bougane ndax tey soxla yu bëri na yitte yu bëri na te ñëpp xam ne lii muy def amu ci benn intérêt xanaa bu dee am na ci intérêt mooy intérêt bu jëmale Sénégal kanam mu jóge Dakar taal ay otom def ci essence ñëw pour soutenir liste bi di coalition Wallu ak Yewwi day wane ne Sénégal lii la soxla soxlawul kuy xëcc jëmale ci sa bopp kuy xëcc jëmale ci intérêt général la soxla kon nag ñun moo tax ñu dagg suñu yit yëpp teeru ko xamal ko ne ko set bi ñu def na ci lool di wax ñëpp ne ñu bàyyi xel ci lii bugaan def nga xam ne Sénégal lu mel ni soxla mais soxlawul ku ne di xëcc di demee ci sama koy ndokkeel di ko jaajëfal ci turu président Ousmane Sonko ak coalition Wallu Sénégal bi ak sunu frère président Bougane Gueye Dany mu ànd ak une très forte délégation ñoo fekk si ñu ci njiitul suñu président suñu tête de liste Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly ñu ànd ak Serigne Cheikh Thioro Mbacké ànd ak soxna Fatma Mbodj ak soxna Astou Mbacké di Serigne Abdou Borom Dër yi bi ñu ñëwee tamit fekk nañu fi waa coalition Wallu Sénégal Wallu Sénégal ku ko wax tudd président Abdoulaye Wade maa ngi nuyu mboolem ñi nga xamante investi nañ ci liste bi bu ma ci tuddee rek président Khayem Tall Mamour Sarr Wassoul Kane tudd naa ñëpp ma ne ma ne na seen ba pare ba 18 heures danañ leen tudd balaa bi ñu tee lépp leer te sax jox leen lekk leen seen alal président Bougane daf ne artiste citoyen wane nga ne vraiment vous êtes un modèle africain un modèle des Sénégalais ndax bi nga xamante ni li la war lépp def nga ko gi jaay la doole génn na ci compétition bi réewam nga jot takk sa ndigg war na yow sénégalais nga africain nga modèle de réussite ci xale yi de réussite nga ci Afrique jóg jël sa alal encore motivation ba nga teg sa bu ko raw nga amaat ko pour jóg ñëw bi rawatina wàllu Sénégal Macky Sall nag Macky alalu réew mi ñu jënd ko patar pataree ay doomu aadama jël alalu mi di ko sàcc di ko patar pataree di jël alalu doomu aadama yi di ko jëfandikoo di naan dégg doomu aadama yi askan wi sonn nañu bi seer na càcc gi bari na nañu bàyyi doomu aadama yi utiliser di kan di jël alali askan wi di ko jëfandikoo loolu ribaa la kon nag président Bougane maa ngi nuyu bu baax waa sant Daaru Salaam di leen sant bu baax di leen gërëm ci seen mobilisation bi ma xat mais dañ ne lu mu xat xat danañu ñëw sargal leen saafonte leen wala fi ngeen toll ci nekk appel jigéen bi góor jigéen nekk appel xeet ci Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ngeen xam ne bid'a bii ñëw bi dafa ñëw pour yéen pour faj seeni soxla ndax moo bokk ci nit waaye dafa xam ne mënut a toog ndax non troisième mandat Macky Sall dictateur la Macky Sall àllu réew mi joxe na ko joxe na joxe ñu suñu gaas bi dëkk bi amul sécurité sant bi baaxul amul njàng kon damaa defe ni yéen du ngeen fal Macky Sall ak ñu àndal kon bu ngeen ci àggee coalition yomb bi mani dama civilisé dama bëgg yéen waa Mbacké ngeen wanewaat seen bopp ndax wax naa ko tey Cheikh Seraye nii Touba moom quatre-vingt-dix-huit pour cent dañu ko gagné incha allah kon ngeen waa Mbacké Mbacké leen seen maire seen doom Abdou Mbacké Ndao ngeen jàppale ko mu ñëw assemblée nationale on est sur rek ndax yaakaar naa ni bu ngeen ko yóbbu koo xam ni xamu leen ko bu ngeen ko yóbbu koo xam ni xamu leen ci ko bugel bule kul tak alur lagi bugel bule bahamu kau bugel bule bungkul bidang tanki wajah kau dah oleh kau makan kau Bangun anak bina peratus pembukaan pengkalan sila kata hawa yang benar negara Islam bagaimana orang dulu bindee vice-secrétaire coalition wàllu ci président Abdoulaye Wade jiite ak Ousmane Sonko pour apport élection yi muy cinq député jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf coow yi jeex na te incha allah bu dimanche bu dimanche dafa bëgg ngeen sol seen yére yu rafet soxla ànd ak jàmm dem voté ji liste nga xam ne moo di intercoalition bi fii ci Mbacké bu ko defee liste ci Mbacké di intercoalition bi Wallu ak Yewwi ngeen voté leen coow li daal di jeex dama ne Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar képp ku leen yaa ngi dooleel góor jigéen ci Sénégal képp ku leen voteel njëg yu yi ci réew yaa ngi koy gën a seeral yéen njaboot yi sonn ngeen njaboot yi lott ne képp ku jox alal képp ku leen jox xaalis xaalisu réew mi la xaalis bu ñu sàcc la jël leen ngeen lekk bu ngeen ko jëlee ci urne bi ngeen votel intercoalition bi fii ci Mbacké muy intercoalition wàllu Yewwi lii nga xam ne ñoo di Abdou Mbacké ak Cheikh Bara Dolly lii am nañu taxawaay pour département bu Mbacké rawatina Cheikh Thioro mi nga xam mu gis ni moom am na taxawaay pour Mbacké am nañu yéene pour Mbacké dama bëgg incha allah dimanche ñu mën président Macky Sall ne ko da ngeen juumoon ci Abdou Mbacké Ndao ñii waaye wan ko ne yéen ci seen bopp taxaw ngeen xamal ko ne ko Mbacké ñun opposition bi ñoo ko moom Mbacké ñoo ko rendez-vous dimanche incha allah jërë ngeen jëf